salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude képp koo xam ne nii abonné ko suñu chaîne YouTube bi duñ def lu dul wax la nga abonné activer cloche bu ko defee benn suñu vidéo fii YouTube dootu la rawati mais surtout gars yi ngeen di liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax Leroy Sané mën naa ni tey ci match bi avant euh, muy dugg ci terrain bi dafa euh, jóge ci euh, pelouse banc bi la nekkoon jóge fa nañ leen expliquer wax leen actuellement mbir mi nu mu demee balaa boobee nag gars yi image boobee ngeen gis ci ginnaaw moom moom moom mooy def moom mooy def ba jamono ji di Jürgen Klopp moom mi nga xam ne ba mu ba Liverpool dugalee gëmeewu ko tellement ba dafa mujjee dem ba ci arbitre quatrième arbitre bi doon ko attaqué doon ko waaye finalement lu metti la ci mujjee jëlee maanaam déch dafa mujjee euh, tànk bi daal xaw ma dafa mujjoon dem déchirure ou pas mu doon na action bu euh, drôle boo xam ne nii reetaanlu na loolooy bàyyil tooñ Jürgen Klopp la mu dafa neex moom may amul benn problème waaye moom euh, parfois bu ko ci yàlla xiiree day mel ni ku ku jëfuur daal mu ngi noonee bu loolu weesoo it tamit gars yi gis nañ ne résultat match yi nga xam ne jotoon naa am euh, ci Ligue 1 sénégalaise suñu football local bi boo xoolee démb la commencé euh, AS Pikine ak Guédiawaye football club fële ca stade Abdoulaye Wade zéro euh, naa ni seetaan nañ match boobee mu metti woon loolu TFC nag tey jii mook Dakar Sacré-Cœur moom it dañoo mujjee nul tembo ci zéro bi partout bi jaraaf mook ki ñu naan jàmbaar moom it daf ñoo mujjee nul mën naa ni daal championnat bi nul yu bëri na trop surtout ci équipe yu mag yi mag yi gis nañ ne ki ñu naan Sonacos nag dafa recevoir génération foot les académiciens génération foot dóor leen un bi à zéro gis nañ ne nag AS moo mook Cneps bu Thiès dañoo mujjee nul un but mën naa ne nul daal bëri na lool comme ni mu leen ko yàgg waxee rek Casa Sport nag moom un moom la dóor ki ñu naan Linguère suñu championnat bi daal doo faral di gis lu bëri ay yu large daal ay 5 but à zéro 6 doo ko faral di gis daal ay 0 0 ngay gis un but ay 2 1 ñoom seen Stade de Mbour mook US Gorée ñoom it zéro but partout moom la match boobee euh, mujjee loolu day firndeel que ni inefficacité dafa am ci nu championnat bi efficacité dafa des maanaam devant le but ay buteurs yoo xam ne nii capable nañ euh, euh, ci championnat Sénégal boobee ba tey nag dañ leen indil la classement bi euh, boo xoolee ci kaw génération foot les académiciens ñoom ñoo ne ci kaw am 35 points mën naa ni ki ñu naan jàmbaar topp ci moom it am 35 points ñoom ñaar ñëpp 19e ñoom ñëpp moom lañ football nii ki ñu naan Guédiawaye doon football ak démb ak ki ñu naan AS Pikine moom 32 euh, points moom la am Casa Sport jël quatrième am li ñu naan 29 points Guédia football club démb moo jël moo jël troisième daal ki naan TFC nag jël cinquième am 26 points points euh, ki ñu euh, points yi daal mën naa ni quatre équipes ñoo ko bokkoo li ko dalee cinquième bi ba huitième bi ñoom daal daal ñoo tolloo points ki naan Sonacos nag jël neuvième am 24 points. points ki ñu naan euh, jaraaf euh, jël dixième am vingt trois points euh, onzième bi mu ngi doon Stade Mbour Stade Mbour am vingt et un points douzième bi mu ngi doon AS Douane am dix neuf points boo xoolee treizième bi mu ngi doon Linguère am quatorze points quatorzième bi mu ngi doon Mermoz bu Thiès am dix points ndaare bi sax moom à tout moment mën na yéeg ci quatrième position bi championnat Sénégal daal moo demee noonu points yi la ñuy rawantee du bëri bu ñu jógee foofu dañuy dem ci deuxième division sénégalais championnat bi wàlli daan nag moom moo dóor quatre 4 buts à 1 amitié waaw bi yooyu ma doon laaj jot naa koo gis ci wàlli daan ah, bu Thiès dóor amitié moom it 4 buts à 1 la ko dóor démb ci samedi bi dimanche bi nag 30 avril ah, tey jii Thiès FC moom dafa nul ak HLM ah, ki ñu naan jamono Fatick dafa nul 1 but partout mook Oslo FA UCST Port moom nag mën naa ni moo dóor 1 but à Kër Madior ki ñu naan Duc moom dafa recevoir Demba Diop Demba Diop door ko 2 buts à 0 Mbour nag man Petite Côte mën naa ni moo US Wakam lundi ñoom moom la ñuy football premier mais agel ah, mook ki ñu naan ne jàmbur tamit ñoom lëndi la ñuy football mu doon championnat boo xam ne nii ah, jamono ji daal ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel loolee di championnat ah, Sénégal bu ñu jógee foofee dañuy dem directement ci Europe wax ci match FC Barcelone ba jigéen bi mën naa ni sax ñoom actuellement nii euh, jël nañ championnat Liga jigéen ñi féminine bi ci anime boo xam ne nii vraiment moom la ñëpp di wax ma match 26 victoire mu gël championnat boobee kon nag actuellement Barça bu jigéen bi raafale na championnat Espagne war na leen ne moo leen ëpp doole jamono ji nag Ligue des champions bi tamit qualifié na final Barça féminine boobee nga xam ne mu ngi def lu dara jarul jamono ji ci football mondial ci wàllu jigéen bu loolu weesoo gars yi dañuy dugg directement. ci Bayern Munich mi nga xam ne mën naa ni tey da doon football ak ki ñu naan Hertha Berlin match bi mujjee ci 2 euh, buts à 0 Bayern Munich mujjee dóor mais difficilement euh, grâce à kan Coman ak ki ñu naan Gnabry ñoom ñoo délivré euh, jàppale ki ñu naan Bayern Munich suñu international sénégalais bi di Sadio Mané nag dugg na football na titulaire waaye poste bi ñu ko teg foofu du poste am bi Tuchel dana woon sax au début ci flanc bi la koy teg mais gis nañ ne ni ñu footballee tey ko te boo ko boo seetaanee match bi da ngay xam ne ni kii ne gisul woon dara seulement doonu recevoir bal waaye fi ñu ko tegoon foofu du postam fi mooy poste préférentiel mooy ci flanc droite bi flanc gauche bi bokk euh, excentré bi di mën di dagg di dóor wala di mën def inde mook attaquant point wala sax numéro 10 bi waaye finalement malheureusement ba Sadio Mané taxawul poste boobee nga xam ne ah, moom la soxlaa pour mën a wane boppam bu loolu weesoo it dañuy des ci nu googee ba léegi Leroy Sané tey jii ah, Bild mu ngi annoncé que ni ah, mën naa ni ba match bi doon daw moom ci banc bi la nekkoon waaye dañoo jeeg saa rek gis ko mu jóge ci banc bi dem yoonam kenn gisaatu ko ñu toogaat quelques minutes mu soog a ñëwaat vraiment te it nee nañ loolu du première fois mu def ko gis nañ ni keroog ci entraînement jeudi bi danoo toog ba ci yàgg di ba ci yàgg mu jóge pelouse bi génn dem ñëw toog lu mat 3 minutes soog ñëwaat xamuñu nag exact génn yooyu lan moo ko waral actuellement nag fële ci Allemagne loolu daal euh, moo jur coow ci la gars yi di waxtaanee mu ngi noonee Leroy Sané actuellement loolu daal la kii ba léegi xamaguñ nag exact lan moo waral muy jug di jógee foofee ca pelouse bi wala soit ci banc bi di dem di ñëwaat kenn xamul nag exact lan la. yàlla moo xam peut-être ci kanam tuuti lépp dina leer incha allah mu ngi noonee gars yi ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee képp koo xam ne nii abonné goo ci sama chaîne YouTube du ma def lu dul wax la nga abonné activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo fii dootu la rawati mais surtout gars yi ngeen di liker di commenter que partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax bu leen koy fàtte like yi commentaire yi partager jàmm ci yéen les gars ba beneen ci yeneen vidéo